waaye gannaawa ngoog lu neex waay tegal gis nga kii yaramam tooke la billahi la wax tafsir mii yaramam tooke la ku ko laal yàquta dootoo baax billahi maa la ko wax am na ñoo xam ni kuy wax si ñoom waxal lu rafet koo xam ni sa dund yépp yàlla nee na yonent bi nee na jàngale alxuraan te loolu la yare ki gën a tuuti ci ay doomam moo jàngal ku mu am yóbbu daara nga ñëw moo la jàngal fiq moo la jàngal siira